yéen a ngi ñuy bàyyi xel si réew mi ak si bitim réew ñi ngi fii nga xam ne moo di Baxdaat suñuy tànk nag bokk ci askan wi nga xam ne ñi ngi doon jooy li nga xam ne moo di ndox waaye nag bi ko xibaar bi bi ko waa Maawu Rahmati yëgee ñoom kat dañoo bàyyi seen yitte yëpp jubal si fi nga xam ne nii moo di Baxdaat ngir wàllu ñi nga xam ne ñoo di askan wi ay fani fan amuñu li nga xam ne moo di ndox xam nañ ne ndox kat moo nekk li nga xam ne mooy dundinu doomu aadama ba tax na kat bi ñu gisee oto bii nga xam ne dugg si ne fii ci dëkk bii di Baxdaat muy xale di góor di jigéen ñoom ñëpp ñoo bàyyi woon seen i yitte ngir topp li nga xam ne mooy oto bi fépp foo xam ne taxaw na fa mu jox leen li nga xam ne moo di ndox waye biñu gisé kat li nga xamné modi auto di bi di auto maawu rahmati ñew fi nga xamné moy seen gox bi indi leen dox mbégte mi ñu andal loolu moo tax tey jii ñoom ñëpp cant ak ngeureum jëmele ko ci li nga xamné moy kurelu kuréelu rahmati ngir liggéey bi nga xamné bu am solo ñing koy amal ci dëkk bi ba fepp fo xamné sori nañ téwul ñom kat yaatal nañ seeni buntu askan bi ndax ndox moy nekk li nga xamné lu am solo ci dundik doomu adama ni rek lañ tay andé ak yeen saa su nekk rek ngir liggéey bo xamné ni bu mucc ayib and la ak kuréelu maawu rahmati ngir ndox moo xam ne dina wër ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba ñi nga xam ne nag ñooy askanu Baxdaat yëkkati seen i kàddu cant ak ngërëm jëmale ko ci ñi nga xam ne nii ñooy kuréelu maawu rahmati. bu dégg ba jëkk nii rek nii duñ duñ duñ toog ci lool tëdd ci lool daanaka bu yombal duñ ko def bi may woo bi may woote suba de booba jaaxal rek a taxal ma def ko ma ne kon léegi naa woo sëñ Badiane. moom it daana ma dimbale bi ma ko woowee nag la ne ma maa ngi seet nu ma def mën a def ba ngeen am ndox ci bëccëg maa ngi daanaka ci pinc ma laa yenn ma ba mujj raadu rek mën na naa faru dem rek naa daa amul daa lijjanti góor léegi bi ma añee ba noppi bay jàng ni fi la ma woo ne ma léegi maa ngi yónnee ndox léegi jotalee xibaar boobu. Hmm. ci lu gaaw yónnee li nga xam ne moo di. Hmm. xanaa yéemu lool ndax man dama ko wax maanaam fi mu jógee sax bari ba waxuma ne dama ne daa wóor ndax ginnaaw nee na ma maa ñëw te te leeru du ma ko gaaw wax nit ñi ndax su ma leen ko waxee te te kii wutam day daal tax yaakaar ndax ñoom ñëpp yakaar yaakaar ndox mi kon nag su ma toogee ba aar bi ma leen léegi ndox maa ngi ñëw te ñëw loolu day de a day waar naan ne ba gis lu wér waye bima waté waatee auto ba nga ñëw naa jël sa numéro laaj ko su ko dee la wooyee rek nga ñu mëna ko daal di woo sama bënd ko na na dem ci pinc ma xaar ko ku ku naan na nekk ba jë na nekk ba eh, ki nga nga dogo ñu dog la wo da nga dala ñur nan dem ci pinc ma mu dem ci pinc ma tok sa yu ñëwee fekk na ko ci naaj bi lañ dem tok ma ak Serigne jaay ginnaaw la bi auto damaa njëkk a woo sax ne ma léegi eh, foo foo nekk nag maa ci pinc ma waaw xaa sant rek ndax man mii day Sëñ Tuubaa Mbàkke mi nga xam ne moo yor dëkk bi man mii ci ñim xam ne ñoom la délégué ci ci koñ yi ñuy wër di def ci maanaam barkeelu ci ndox mi ndox Tuubaa mi ci laa bokk luñ fii dénkaane ci xaalis man mii lañ koy dénk ci koñ bi su demee ba matab lim yóbbu ko yóbbu ko ci banque déposé ko banque jox la suñu kayit defe ko na ko ñaari yoon hmm. ah, ah. xanaa jàpp ci bu baax a baax rek comme ni ma déggee suñ si yi du ko waxee ñun ñëpp ñu jëm cee jàpp rek ndax euh, jàpp ci moom liggéeyal suñ Tuubaa ndax koñ bi ñu nekk nii tey robinet bi fi njëkk a am ci suñ koñ bi Cheikh Aliou ko fi def ci muy robinet ba nekk fee ah ñun ñëpp jàpp ci ndox mi ne ma ko waxoon tey tey tey tey tey defar rek ndax sànq ci si bëccëg laa ko wax naa fi rek ne kenn nangutu sax sël bu sël bu baax ndax ñàkk ndox te léegi soo amee ndox nag mel ni fàtte nga fàtte nga loola ndax defara ndox bi defara Sëñ Tuubaa la ndax bu Sëñ Tuubaa dee liggéey yow itam ngay di am nooy defale ngay doxale say say mbir day xaw a am nu muy nu muy demee bu bëggan ñun ñëpp bu ametee ndox itam ñu xam ne day am tey su ëllëgee du am ñu jàpp te jàpp ci jàppale jàppale Sëñ Tuubaa la ci jàppale Sëñ Tuubaa moo jàppale sa bopp. sëñ Sidi Moxtaar di ko ñaanal yàlla guddal fanam te yàggal ko mu yàgg suñ kanam ñu yàgg ci kanamam Mbàkke ah ñun jigéen ñi baax nag sonn nañ lool ci ñàkkum ndox mi. ndax boo xëyee war a sëlmu sax da ngay a laal ndox mi ndax yaakaar boo ko laalee doo am loo togge wala say gone duñ naan doo sëlmu sëlmu bu yegg ndax ñàkkum ndox wax dëgg ñak ko ndox ñu moom nepp na lool ba ca kanam yàlla ndax xam nga ne ak paanu ndox nga yanoko fi fii ba sump ga wala si ba marché gede dafa métti nga war a ñëw jox say gone ñu naan war caa taalub añ loolu metti na lool te yàlla tax waaw ñetti fan yàlla yi nii ñu ñàkkum ndox boole ko mbooye moo xam ne kenn euh, euh, maanaam jéggi gi daal a gi daal jéggi na dayo mbooye ñu ngi daan roote ba gede magasin yi lañ daan roote waaye ndox mi démb daa mujjee aju fii ba gede lañ ko doon roote ji xam nga yi nga yenu paanu ndox di ko yenu ba gede di ko indi fii metti na lool te boo ne jaaykati ndox yi ñu ne li ma yor sama poos bi mënuma cee dolli leneen waaw bi ma xëyee aw ma ndox te maa ngi nii wóor na sëñ Fallou Mbacke yàlla moo ma tiim moo tax may wax tey togguma añ ndax ñàkkum ndox fonde laa jënd samay dom ñu naan ko ma sukkara leen ko ñu naan ko ndax ñàkkum ndox diggi diggi diggi gurangu ndox moom laa yendoo moom laa fanaanoo yendoo ko samay gone di ci naan nii bi ma séenee oto bi ñëw gëmeetuma ko ci nalaw laa nekkoon waaye dama tëb ndax booba maa ngi doon xalaat fu ma jëlee saretu mbaam ba mën a àbb saret bi dem rooti ko waaw ah tax tay ganan mëna sangu ndax dem barki dem ba nagëni sangu ñu suñu gëna sangu ñu footu ñu suñu gëna footu ñu waaw kon nak tay mom danan contane lool ndax ñoo am luñu taalé suñu gëna reer ñu mëna reer ba suur mën ci naan waaw tay ke bima gisé li contane na contane na lool sama yaram daw na sax ndax gis nga dama tok ben place sax mënuma mënatuma jog ndax sama yaram dafa daw ndax xam nga ni li naaju tang wi jigen ñangi agn te kenn ku ci ne ndox ma nga yanu yang ko yano je ba gede yéen ko sa digg naaw gi boole koog boot sa doom ñëw agsi togg añ ba pare fi ne taluloo dara lu tëdd noppalu buñ déggee ndox mi kenn ku ne kenn yuuxu ne loo loo loo ndox ñëw na ndox ñëw na rek ci la ñëpp fee tax jóg ñëw taxaw yéen yéen a ko gisal seen bopp caméra yi jël nañ ko métti na torop ko bi naanuñu fóotuñu ragguwuñu suñuy doom naanuñu tëluñoo fóotu yére même tey ci suba wóor na sëriñ Tuubaa barke sëñ Abdou Xaadir Mbàkke mii ma sukk ni mu sukk yaakaar tey lu ma toggi añ dama ne woon damay këpp sama sama ndugg mi ba ngoon ma wëri ndox doogatal añ waaye li ñuy wax sëñ Abdou Xaadir soo ko yaakaaree la da lay indi xéewal moo tax ngeen indi mu indi fi xéewal gi kon maa ngi ñaan yéen ñi nga xam ne fi ñëw ñu yónni leen liñ fi nekke sonn nan ñun sanc yi amuñu courant amuñu ndox

kontaan nan ndax lii tes dem ba léegi noo sun noo ngi nii dañuy daan yanu ji ca gede ak di yanu ji ca tindoodi démb ba léegi ba ñetti fan yàlla ngi ni fu di yanoo ji nan fa kon waa imaamu rahmati bi nga xam ne si ne ñoo fi indi ndox mi ak yen ñii sant nañ leen gërëm nañ leen na leen di ñaanal yàlla yàlla na leen sañ fàllul fayal boppam barke sëñ Touba barke sëñ Abdou Khadir Mbacke mi moom dëkk bi kontaan yi nga xam yi nga xam ne moo di Touba ñi nga xam ne nag ñooy askanu Baxdaat yëkkati seen i kàddu jant ak ngërëm jëmale ko ci ñi nga xam ne nii ñooy kuréelu Maawu Rahmati ginnaaw kat cant ak ngërëm yi nga xam ne amal nañu ko kon nii rek la fay demee jërë ngeen jëf di leen sant di leen gërëm wasalaam